Bienvenue sur Salam Vision.

priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous savez, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Seigneur, notre Père, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. tey moo ngi euh, maa ngi gërëm ñëpp euh, ñu fi teew di ñëw man tey mooy mooy bëtu comme ñoom mooy bëtu comme ñoom dañ koy ñaanal loolu yaram gudd fan kër mu sell mi wàcc na ci moom tey ñaanal ubbi ko xel bi moom xel xel bu jàng jàng kam la kam la ko yóbbu may ko mu mën a fekkee confirmation à son mariage bi loolu moom mu ngi nekk sër mu nekk sër tamit solo mooy li nga wax rek boo nekkee pare sa xel am benn bu jàng nga bàyyi foofu dégg nga malo nga bàyyi foofu nga jël sa xel nga def jàng bu ñu doon see waajur bu ñu doon leen bàyyi nga bàyyi bu ñu bu ñu leen defal nga def dégg nga moom laa am pour wax. bon li ma li ma wax Jean wax na ko rek quoi ñaanal ko suñu ñu ñaanal ko suñu fan wér-gu-yaram comme ni ñu taxawee nii communes yi ñu taxawee ko confirmation ba ci mariage comme Jean en plus tamit di remercier tamit ay waa këram jigéen bon gis nañu fi seen taxawaay bi yëpp quoi rafet na trop tamit di gërëm waa kër yi tamit surtout élèves ni mu nekk loo ak euh, yaay ji quoi ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp man foog naa wax yi càppul wax na ko pare lu daal di ko ñaaxaat rek ñi ki da ànd ak sa xel ñi la yore da leen di mën a déglu waaw comme il le faut sinon rek mooy loolu quoi ñaanal gudd fan rek bon fête bi réussir bon ñëpp nekk ci jàmm quoi ñu lay fay. yéen it sonay baabaar sonay baabaar. Thank you. waaye am na am naa lay tànn taxawaay bi nga rafet na trop ndax Mado mi ngi fi depuis ba tey ñoo ko yor waaw am rek ci kër gi nag moo war man nag wax nag moom la moo koy wax dëgg yàlla nag mënut maa wax waaye nag. neex trop bii daal bi daal la. non man su a daal la marraine. bu leen jox xale yi jëlal kaas yi bu ko jox xale yi xale bi pare dañuy kii. dañ leen ñu fi nekk ñu fi nekk ñu bëri ci fekkee wuñu Fatick euh, commencé parce que dafa ne sànq xam moom moo toog ci élève parce que ñun catholique parrain ak marraine xam ñoom ñoo représenté parents xale bi ci jàngu xam c'est très important moo tax ba nga commencé foofu xam nga bëggoon wax a tax ma ma ne damay jël parole li nga li nga wax mooy mooy mooy mooy c'est ce qui est normal lii nii tey bu ñu demee ba retrouvé wul fii encore grâce à les deux yi Hélène ak Jean Paul xam nga parce que parrain yombul nekk marraine yombul sas la te loolu da koy xam bu ñu la choisir pour nga nekk marraine marraine xam doo doo yam rek suñu xam ñoom bu ñu yamoon suñu bataay xëy na Mado du egg fii tey xam ñoom def nañ seen liggéey ba tey nii ñu doon liggéeyu li ñu ñuy def tey ñaanal ñaanal leen encore remercier leen du leen ñaax encore xam parce que des na des na confirmation des na mariage ainsi de suite xam loolu la ñaan xam ñoom franchement ñu xam nga ñu continuer encore gën a jàpp encore xale bi mën a ñu mën a demaat ba gunge xale bi ba ci confirmation ak mariage ainsi de suite loolu rek laa mën a wax quoi merci. awa boobu ñëw nañu ko ci nekk dikk nag def seen day def mu jaax dikk dete noonu bu maa bi yëpp dikk ko parce que yàlla bu bokk bu ñu jaax dikk ci noonu ëllëg ñu sama sa bu daal def seen ñaar ñu sa xatee yàlla jubale leen yéen ñëpp ba ngeen doon jeex ñu xam ne dafa laaj loolu ngeen di ñaan ndax yàlla def yàlla def waaye gisul ngeen am nasaxaat jàmm ak fay yéen nag yàlla mi am jàmm nag yéen na ngeen may jàmm moom mi nag yéen na mun a jàmm ba di ko defal mariage Hallelujah. grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. La maison d'Aaron peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Amen. alhamdulilah alhamdulilah. wala laa. waaye man damay béy waa bu doon ah. ma ngi yow ma ngi yow. payen wala payen. payen nga. payen Doideira. Pensei um dia amar assim Desde o dia que eu te conheci

ne waa waañ bi ñoo nekk nii quoi. ñoo nekk nii ñu toog mu defar ginaar yi nii. waa waañ bi daal li ngi defar ba mu baax. waaw vermicelle bi pare na. dëgg la loolu. ginaar yi soos baa ngi dee. ubbil ma soos bi yow ma yër ko. jaara ubbi soos bi. tey na tey. soos baa ngi nii dëgg la. Bienvenue sur Salam Vision,